Sénégal rawatina waa Touba bu ñu fal nañ fal ki yërëm jigéen ñi yërëm ndaw yi nañ fal ki nga xam ne tey jii bu dara du dara dana def social nañ fal ki nga xam ne taaliba Serigne Touba la waaye nañ fal ki nga xam ne Touba rek moo ko ñoon waaye nañ fal ki nga xam ne tey jii bu yeewoo Touba la bu tëddee tamit Touba la muy Abdoulaye Sylla loolu na ci ñëpp bàyyi xel kon nag mbokki xayra yóbbal bi mi ngi noonu lii daal yaakaar naa ni eh, kenn du ko gis di ko di ko ci leneen yaakaar naa ni moom roy du nuroog piir ku ne xam ne roy du nuroog piir ñi fi nekk nag wax rek lañ bari fan yii nag dégg nañ ay ndaw yoo xam te ay politiciens lañ ay politiciens yu mag nekk ci seen ginnaaw ah di leen ruuxale di leen jër di leen jar ci kaw ak kaw Ablaye la ak c cinquante ñoom suñ xamul nañu noppi Ablaye Sylla tëluti wax fëyantuwul li ko ñor mooy liggéey liggéeyal senegal liggéey alalum ju lew di jàppale sénégalais yi ubbi ay entreprise jël ay ndaw jël ay jigéen jël ay góor ñu di fi liggéey kon ñooñu nga xamante ne tey jii yaakaar naa benn mérité ca Mbàkke wala keneen mooy jug li lay loo Ablaye Sylla nañ arrêté yooyu nañ xam ne Ablaye Sylla du seen morom du seen mbappandoo Ablaye Sylla taalibe Serigne Touba la te Ablaye Sylla li muy liggéey ñun murid xam nañ fi mu koy def waaw xam nañ fa koy jëlee parce day ñàq mais xam nañ tamit fi mu ko indi di ko di ko di ci dimbali njabootu Serigne Touba xam te yëkk incha allah dañoo fa dañuy ñàkk nguur gi moom ndax Ablaye Sylla jug na leen may dara bu fekkee buntu xataa la ñuy def nañ arrêté yooyu yooyu ñun faale wu ñun ñu fi nekk Ablaye Sylla faale wuñ yooyu li ñu parce que parce que nag ñun ag ñoom la woon ci terrain bi. nañ xam loolu bu baax a baax a baax liñ mën a ak seen point faible xam nañ ko yaakaar naa am na ci benn député boo xam ne ñoom ñëpp moom lañ gënoon a yaakaar ci laamañ fi mu toll arrêté nañ ay waxam dem na ca gaynde yaa bukki yaa mbaam ya yaakaar naa ñoom ñëpp na foofu lañ mujj dem nañ xam loolu bu baax a baax ñun jug nañ di liggéey te li ñu liggéey tamit dañ ci servi askan wi ñu nag yenn euh, tooñi te ñu leen nañ arrêté seen euh, kàddu yooyu ñuy yëkkat di ko jëmale ci président Abdoulaye Sylla wasalaam